asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 3 juin 2019 ñu ñëw ci yéen yëglekaay yi mu mel ni nag yëglekaay yi tey jàppal journal sunu làmb xëy na ñëw ci koo xam ne jiite woon na fi sportu Sénégal ci at yu yàgg yi amoon na ko ci jamono kii nga xam ne moo di abdu Diouf ba ci Abdoulaye Wade sax nekk na fi ministre moom Daouda Faye ñu naan ko fa waa mel ni ki tey nag dafa xëy moom yor almetam rek. kos nee na li muy taal mooy seen seeba daal la jàpp ne dañ ko war a taal teg ci almet boyal ko ndax ne na lii moom du aw yoon jékkul te jaaduwut ne na Alioune ci boppam li muy def tegu ko fenn ndax ne law yoo xam ne dañ la fee togoon professoirement nii rek ndénkaane ana tànda nga war fee jóge na nga toog fukki ñaar fukki at ak juróom ne na loolu mas ta am fenn kon daal Daouda Faye Vafa ancien ministre des moom la mu jàpp daal ne na CNG ci boppam dañ leen fee war a jële rawatina ka ko jiite nag muy docteur Alioune moom daal daa jàpp ne day dem la war a def te nag xajal xale yi nga xam ne ay gune lañu ñu ñëw dugg ci mbir mi yëngal ko sam wala ñu jéem a doxal bokk te moom mu bàyyi Yékini ak Tyson tamit wax na ca seenu dugg ca biir fii nga xam ne moo di ca CNG ba loolu lépp Daouda Faye wax na ci moom daal la mu gis moom loolu aw yoon daal la jàpp mbir yooyu yëpp dafa jàpp ne daal lii tegewut fenn leneen loo xam ne moom dan cay dem muy loo xam ne day tege na fenn ba am na ab date muy diggante Gris 2 ak rëg-rëg mu mel ni ki nag ñaari mbër yooyu am na koo xam ne tey xëy na ñëw di wax ci ñoom muy Ndiouga Dia di entraîneur nekk ca Rock Énergie nee na day li mu war a def mooy woo Reug Reug ci mbirum xeex moom daal loolu la gis jàpp na ne tamit ñoom ñaari xale yi day nekk nañ ay gune yoo xam ne day jàppal ne nañu mën a bëre lañ ñu ne ko Reug Reug luy fooram mu ne Reug Reug day fooram mooy li muy gis moom gisul adversaire bi ci kanamam moom daal li mu gëm lay imposé bu ñëwee teg la ko jële la fa demu yoonam ñu ne ko léegi nag lan lay bañ maanaam ay point faible am mu ne li muy bañ bokk na ci koo xam ne da koy diriger nee na moom saa yu ko diriger mu nekk ci ay difficulté te na na combat yu mu ñàkk dañ koo diriger mu ñàkk ko mu ne Gris 2 moom ay fooram mooy ku foor la ci wàllum fausseté maanaam pàdd ak xeex nee na yooyu day foor na ci lool te nekk na xale boo xam ne daal maanaam itam day ku jara bàyyi xel la moom daal xëy na tey moom njuga ja wax ci ñaari xale yi nee na daal combat bu neex a neex di nga ko si te jàpp na ne sax saison bii moom li ci dàq ci ay combat moom njuga ja daa jàpp ne day mooy diggante Gris 2 ak Reug Reug moom la jàpp ne day combat du ko gën a neex leneen loo xam ne nii moom ab combat la buy waaj muy diggante ba tey Modou Lo ak Eumeu Sène mu mel ni nag kii nga xam ne nii mooy la njang mu ngay dànkaafu gaa yi de nee na leen jàpp leen yéen yëddukat yi wala ngeen dee espion ñu leen di dox di yónni ci këru mbër yi bu ngeen fi jógee naan yéen a ngi ñëw kër Eumeu Sène wala di ko jegeñ moom jàpp jàpp leen nee na day interpellé waa réew mi lu xew bu keroogee rek nañu jàpp ne ñoom la ndax ñoom jël nañ seen ay dispositif ñu ngi ci seen ab ruq toog liggéey seen ab liggéey képp ku ñëw nag di leen yëddu luñ la def rek yawa ndax moom jàpp ne ñoom day xamante nañu seen biir ñi ñu xam ñuy ñëw ci ñoom xam nañ leen kon daal mu ngay dànkaafu ne ko nag waa léegi Modou Lo ak Eumeu lii nga xam ne mooy ci côté mystique mun a jàpp leen ñun moom mystique la fukket ngay bëre di daan nee na nga ñàkk benn combat ci contre Modou Lo nee na du tax ñu saase ko maara ñu nekkaloon ba tey ñoom la ñu continuer di nekkal moom lañ njang daal xëy na tey wax a wax a wax ba ne xaaw ci yëglikaay bii nga xam ne nii moo di sunu làmb kii moom jëf ba ne xaaw la def muy bombarje mu mel ni kii nag yëglikaay bi daal xamal nañu dey Bombardier nag ginnaaw ñetteet yi nga xam ne moo ko dese mu dem retraite Bombardier itam am na loo xam ne amaloon na ko mbuur ci weekend bi Bombardier daal làmb na ci poosam lu toll ci ñaari million ak lu jàppale ay xale yoo xam ne day benn pépinière la fu ñu yar ay gune yoo xam ne la fa nekk ci ay xale sunu làmb nee na toll na ci cent cinquante bébé maanaam daal téeméer ak juróom fukki xale day la ñu fay yar boo ma ji génne ñaari million ak la ko tegu daal di jënd ay tonni ceeb yoo xam ne day toll na ci fukki tonn jox leen ko defar leen ndogu loo xam ne daal ndogu lu riis liir la mu mel ni ki laal loolu bari ki dem la ko def fa nga xam ne mooy ca mbuur di leneen loo xam ne tamit mu ngi koy waaj mooy làmb joo xam ne day da koy tëgg ngir mois de bi jàppale ko nag ñi nga xam ne moo di silmaxa yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi wala handicapé yi mel ni kii ki Bombardier moom ca mbir yooya ca la nekk fi mu nekk nii leneen loo xam ne tamit danu cay dem wala keneen koo xam ne moom des koo bet te lañ ko bette di bànneex muy bàyyi ma njoon mu mel ni ki daal muut la ma fi nekkoon adversaire am sunu lam ne ne da koo woo téléphone di ko jaale wuy juróom ba nga xam ne génnoon na àddina fan yële passé mu mel ni ki nag loola lu ko neex la waaye keneen waaye ba bàyyi ma njoon moom nag mel ni làmbam ja léegi leer na sunu lam na la 30 juin bii ñu jëm day ca la ñuy la ñuy bëre daal moo ko xoyantaan drapeau Sénégambia yëg li kaay bi ne nag Jamaïque moo fa jaar moo tëgg làmb jooju nga xam ne moo wa a dox ci combat boobu war a melentaan ak kii nga xam ne nii moo di Baye Mandione bu gëm sa bopp beneen combat ngii de boo xam ne nii taxaw na muy fils de Zallo ak kii nga xam ne mooy doomu jàmbor ko pour le 7 juillet yëglikaay bi sunu làmb moo xëy tey dinu ko wax yëglikaay bi ne nag ca combat kii nga xam ne mooy njaaytin ak Birahim Junior mboobu combat mooy doon combat spécial ba sunu làmb nu ko wax lii lit simple moom dan cay dem mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day Adrien Senghor ñu ngay xaar nag Korité gi passé kaay bi ne na mbir ya commencé waat moo tax yëgle kaay bi ne na jàppal ñu ngay xaar ñu mel ni ki ñoom rek ndax dinañu ñëw ak di xaar ku mel ni Franc ndax dina ñëw fii nga xam ne moo ne ci adresse xam ne boobu ba tey mu nga fay wër ndam mu tëg ko mu daal fi mu nekk ni moom ñoom ñu ngay xaar Fatick moom drapeau de l'état bi ndax dinañ mën a li nga xam ne ni moo di jël ko loola daal yëgle kaay bi xëy na tey ñëw ci waaye man Talla Ndiaye fa may jeexale wala fa may dell waat mooy ca Bombardier la mu def Talla Ndiaye ñaari millions la génne sunu làmb mënu ko wax jàppale xale ya nga xam ne dañ leen di yar ñu di ay jirima ki bàyyi ma mu jël ceeb bu bari ak xaalis jox leen taxaw leen mu mel ni ki nag Taala Njaay loola waay man di wax ci àddina lu dul mbaax mbaaxa ko gën kon nag loolu moom desul ma def lu dul rekk ne ko kon Bombardier jërëjëf ndax ku xiif nga lekk jox ko mu lekk rawatina xale bu ñàkk wayjur nga dimbali ko te yàlla rekk tax ah bu la yàlla fayee nga xam ne yàlla kenn du moom kon képp kuy def lu baax yal na la yàlla fay waaye ku ko mënul sax yal na la yàlla jubbanti ba ngay def lu baax ndax mbaax rek am solo taala suivre ci Leewtoo TV rek ginnaaw revue de l'arène bi ñu ñëw ak yéen tuuti rek ci ziara leen nuyu leen balu leen ak internautes yi waaw comme ni ngeen ko xamee nag tey dafa tombé ak euh, lundi ah lundi 3 juin 2019 li nga xam ne ni nag moom la yëglekaay bi indi tey mooy lu jëm ci mbirum ki nga xam ne nii mooy Daouda Faye Vafa moom moom nekkoon na fi ministre des sports référence ci jamonoy Abdou Diouf ba si Ablaye Wade jiite na fi sport réew mi lu bare bare bare bëri moom Daouda Faye Vafa di kilifa ne ci réew mi moom nag taala li mu wax mooy ci côté CNG bi lay ñëw di wax pour que ne daal dañ ko sax war a taal waanam jëli leen fi rawatina Alioune Sarr ak ña mu àndal parce que dafa jàpp ne Talla Ndiaye dañ laa dénk professeur maa nee mbir mu ñu bëgg ko def ak pal ba mu dem ci vingt cinq ans moom gis na ne bëri loolu nag moom en tant que kilifa en tant que ku yore woon sport réew mi bu ci waxee xëy na la muy wax xam na fu mu ko teg ak li tax mu di ko wax waaye loo ci mën a dégg daal moom loolu la xëy tey di ko wax ñun nag li ñu mën a xam daal mooy que ni ak lu mën a xew daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi parce que ku dem ba nekk ministre de la république moom yaakaar naa am na lu bëri loo xam ci xaw xam ci réew mi Alioune Sarr tamit kilifa la ci réew mi mu mel ni ki daal loolu mooy débat boo xam ne ah waaw fi mu nekk nii nag euh, comme li ci mën a wax mooy que ni moom ministre bi yaakaar naa reconduiraat na ko pour ñaari at kon yaakaar naa xanaa dañuy muñ ba ñaari at yi jeex kon ci niñ ko xamee pour que mu mën fee jóge loolu mooy war waxi vava di Daouda fay leneen loo xam ne tamit gis nañ ko mooy lu jëm ci mbirum Gris 2 ak Reug Reug waaw ki ciy wax mooy Ndiouga Dia Ndiouga Dia nekkoon ancien wu écurie Fass tey mu nekk dëkk Parcelles yor bokk ci ñu yor Modou Lo nekk entraîneur ci Rock Énergie li mu wax si ñaari mbër yi nag am na ay xale lañ yoo xam ne fi mu nekk nii moom vraiment seen combat bu ne combat bi saison bi man duma ko weddi parce que li tax mooy musuñoo daanu te ku ci ne fi mu nii nit ñaa ngi naan kii mooy favori kii moo ëppale li kii moo ëppale li mais comme li may wax rek nañu yónni yàgg suñ demee ca euh, bésu combat bi si kàttanu yàlla dañ gis ñoom ñaari mbër yi lu ku ne ma ne waaye daal xam naa ne ku ci dugg ci li sa moroom man bu keroogee yaakaar naa ne balaa ngay xalaat des na la daan maanaam daal mbër moom soo ko bëggee mbër moom taala lu la waaye mën a wax mooy fooram dee ko moytu soo bëggee mucc waaw dafay am solo ndax mbër mu ne am na lu ko yàlla may ci foor moo xam dana déq toonub teq wala reñaan wala fadd wala dëbbu col wala naax yaa ngi dégg wala sax xeex lu ne foor la ci mbër yaa ngi dégg ku ci nekk nag na nga moytu sa foor morom man loolaa leen di dénk lanjang itam xam nañ ko digganteem ak Eumeu seen ak Pikine ak si nga moom it mu ngi dànkaafon ah. yëddukat yi la wax comme espion yi ah ñoom nag dañuy làmb làmb xam naa daal moo demee noonu waaye moom teel naa wax teel naa wane daal nekk ku jóg itam ñëw di def leneen lu bokk nag loolu wala nga di leen jéema a yëddoo koy loo ca góobee gar ko kon nag nañu ko yemale daal ci cadre sport ku nekk préparé sa mbër na nga ko yaakaare indi ko bés ba mu daan parce que est ce que yëddu sax dina tax ndam am yaakaaruma ko li gën a wóor daal muy réalité géew ba mooy que ni yow lutteur bi nga nekk au top le sursis ñëw ànd ak li nga war a àndal sport la su bés baa nag que le meilleur gagne parce que il faut am ku daan ak kuñ daan waaw loolu moo mën a am mais dafa nekk revanche boo xam ne bu méttee Bombardier loolu mu def tamit taal defe naa lu rafet la te yaakaar naa ku ne war na ko rafetlu ay xale yoo xam ne dañu ñàkk ay waajur wala ñu nekk yeneen ay jafe-jafe ñu denc leen si benn place di leen yar nga ñëw yëkkati valeur u deux millions et poussière jox leen ko dimbali leen ci dix tonnes yi ceeb mel ni ki noonu yaakaar naa Bombardier tamit loolu mu def defe naa ne képp kuy nit rek wala nga bëgg lu baax war nga ko rafetlu kon Bombardier ñu ngi naan jërëjëf ci loolu mu def parce que xale moomin la waaw te moomin nag alalu sunu borom la xale alalu yàlla la loo kon bi nga xam ne ku mu fay nga xam ne fayaakoon bi fay na la moo lay fay kon Bombardier jërëjëf ci acte boobu di wax tamit képp kuy def social tamit yaakaar naa dañ la naan jërëjëf ndax ndimbal moom du tuuti kon Bombardier jërëjëf di wax nekk daal loolu moo fi ñëwoon tey ci li nga xam ne ni mooy revue bi di nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di nuyu Talla Ndiaye mi nekkoon si caméra bi xam nga ak yàgg maar mi nga xam tamit mu ngi doon assisté ak ki nga xam ne nii moom moo di Fleur Thiam mi ma puudar ak kii soxna nu mu tuddati sax Talla Ndiaye fàttali ma tur bi euh, ayda ayda ah Aïda maa ngi koy nuyu di ko ziar Aïda Diouf waaw moom sama mbokk séeréer la di nuyu ñëpp mais tam di bural nuyoo sama doomu ndey sama rak sama xar Youssou Ndour l'international Talla Ndiaye dem dafa maa woo ndogu këram xam nga olof ne na xeru téb sàkket da cay daru loolu li ko waral mooy xëy na yëg bu mu yëg Babacar ba bëggu ko mu koy nuyu di nuyu magam mami Ndoye ñu naan waaw Khady Ndoye di mami mais di nuyu tamit suñu yaay di seen yaay ndax seen yaay sama yaay la muy soxna Penda Diawara maa ngi koy bu baax a baax madame Ndoye di nuyu waa kër googu yëpp waa Sacré Cœur du ma leen fàtte di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV mais Khady Rose Ndiaye maa ngi koy bu baax a baax depuis Allemagne ñoom tuuti yaay Sarr Fatma Fall Ndongo Fall Italie ñoom Balla Gaye taal bi sëñ kër Si mais Talla Ndiaye muslaay xam nga ko taala kenn du muslaay gis nga li ma sol nii muslaay couture ca Parcelles Assainies unité di set moo fi jaar solal ma lu rafet lii kera bi may Balla Gaye wooy ne kaay ñu waxtaan kon ma koy nuyu moom muslaay couture mais tamit du ma fàtte Rimka couture ca sànn Sandaga di sama doomu ndey di ko nuyu mais ami sidi bi fii zone A maa ngi koy nuyu bu baax a baax moo borom këram Cheikh Sidi bi taala daal di la wax ne jàmm yàlla na sax ci réew mi nu ne muy Sénégal xol bu sedd yaram bu sedd barke yonent bi sallallahu alayhi vive Sénégal vive la paix mais Sadio daala Sadio Mané dama koy féliciter dama ko fàtte woon Sadio Mané maa ngi koy féliciter bu baax a baax parce que nag sunu sag la sunu sag la ñun ay africain lañ mais ay sénégalais lañ te fier fier nañu tey ci moom loolu mu am mu jël Ligue des champions finalu bokk ci ñi nga xam ne tey ñooy leader yi équipe type bi nga xam ne moom moom la UEFA tànn mu nga ca attaque ba mook ñoom Messi ak ñoom Cristiano Ronaldo kon Sadio Mané fa nga ko teg foofu la foncel te demal ñu Égypte indil ñu kaan bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax yàlla moom lu la laaj ko ko